cib janook taskatu xibaar yi groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar daal du nandey tontu ci di tax mu tuxal élection présidentielle bi ñu dëgmaloon 25 février bu atum 2024. la ko waral bu ñu sukkandikoo ci ñoom di ñeenti mbir bokk na ci gàkk-gàkk ñu nemmeeku ci processus électoral bi la. ñu am ay jafe-jafe ci wàllu parrainage Karim Meïssa Wade ñu ne doo bokk ndax da ngaa am beneen nationalité ñu gis ne am na leneen lu ne processus bi am na ay jafe ci njëlbeen daanaka juróom benn weer la ñu waxoon ni la ñuy dàkk jongante bi lee waaye pencum ndawam réew mi tànn datub 15 décembre bu atum 2024 la ko waral bëri na bu ñu sukkandikoo ci ñoom. ci biir ay manifestations yu benn bokk yaakaar di ñaawlu itam taxawaayu yeewu askan wi nga xam ni doon nañ bëgg a tere wooteem loi bi ñëw di saaga nit nit ñi di wax wax ju di yéeg ci kaw taabal di dóor nit ñi ba sabote sax li nga xam ne mooy micro bi nga xam ne président assemblée nationale moom la war a waxee pour le président xam nga ne ñooñu suñu waxante dëgg amatuñu seen place assemblée. donte ne wax ji bëri na député yu coalition Benno Bokk Yaakaar di fédéral seen ànd ak candidat bi di Amadou Ba ñu koy tudd ci ay mbirum guerre. on ne verrait bëgguñu suba muy gagné élection deram di yàqu moo tax ñu bëgg ko setal xam nañ ne ku jub la ku responsable la amuñu benn reproche buñ koy def. député yu majorité présidentielle yi lee la ñu bëgg moo di ab dialogue politique boo xam ni mbooleem acteur politique dana fa daje loole ngir ñu mën a amal élection présidentielle bu 15 décembre bi ñu dëgmaal ci anam yi mu gënee